asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen di nuyu te di leen indil seen naafil ak ñeenteelu guddi gi guddi ñeenteel gi naafila ñeenti rakka la rakka bu ne benn fatiha nga ciy jàng ak ñetti xul yaa ayyuhal kaafiruuna ñeenti rakka yoo xam ne rakka bu ne benn yoon nga ciy jàng fatiha. teg cee ñetti xul yaa ayyuhal kaafiruuna ñi ngi ko jukkee ci téereb Sëriñ Chouhaïbou bu Mbàkke jërë ngeen jëf